mbokk yi compagnie Sénégal c 3 moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butiku c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di jagleel ko région yi di maatam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jeetu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépo la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. sëriñ Abdou da nga ni ko sëriñ Abibou waxee na tuuti ci wàllu tarbiya bëggoon la laaj rek ni sëriñ bi daan tarbiya dellu siwaat di santaat bu baax sëñ bu ci ni mu jëlee waxtaane doon niveau bu kawe boo xam ne koo gis di nga xam ni li muy wax lu mu dund la sant nañ ci bu wér alxuraan daa wax ni wa kullan naxussu min anbaa'i rusuli maa nusabit bii fu aadak xam nga ñun ñu fekkewu démb dañuy itte woo xam démb lool ndax dana daalal suñ xel ci yaar <laughs> danañ xam ñi fi nekkoon ci lu baax donte am nañuy tolof tolof ba xuus ko nuñ mujje danañ ci xamee tamit ñi nga xam ne dañ doon jaay doole ci am am ak man-man donte jekkoon nañ jamono ja nuñ mujje alxat kaane fii xisasi ibratun li ulil albab ak lu mën a am ak lu mën a am wala aqibatu lil muttaqin ki jaar yoon ak lu ko mën a traversé ci jàmm rek lay mujj ñi bon itam kin mënu ci dara dara dara luñ mën a am ak luñ kawe kawe ci ci mbon rek lu ñuy mujj moo tax santaan nañ bu baax sëñ Abibu wax na ko léegi xam nga tërbiya daa amoo yoon sëñ sëriw nag moom daa mel ne dañ ko koy rafaatale li tax mu yomboon ci moom mooy ñi muy defar xoolul ci ñoom jëmm jiñ doon waaye bëtam da koy jël waraaxi fii kulli xalqin xàqa man xalaax toll booy xool nit ki ci nit ki da ko jàppeek doyee dem ba ak ñàkk xamam ba ak tilim waaye da koy jël boo gisee léegi ma koy wax rek man sëñ Moussa Diop mi nga xam ne ñoo bokkoon benn daara da ngay gis sëñ bi di topp ci xale di ko jox gëdd di waxtaan ak moom di wéet moom te doo xam lu ko waral kooku day néew doole lool wala mu ñàkk man-man lool mu jël ko teg ko ci kaw booba jël na xale bi waaye mi ngi xool juróom ya nañ doon def ak sëñ Tuubaa moo tax ku jaar ci moom li lay jariñ ci moom du sa jëf ju bari du sa lot du sa du ñàkk am ndax ndax ni yàlla lay jëflanteeg nit ki nga xam ne cig baaxam ci yërmandeem ci tabeem lay jëflanteeg nit ki waaye la alxuraan ni wala yuwaaxisullahu naata bi sulmihim bu doon day toppanteek ñun ci ko def nga def rek du fi bàyyi kenn koy dox loolu moo feeñ ci jëmmi sëriñ bi ba nga xam ni loo yambare yambare loo tële tële way jur wi nga xam yéene ji nga xam ne sa way jur moom la la joxee moom lay nangoo tël jël sa tële ak sa ñàkk xam fokk nga defar kon moom nag sëñ Abib wax na ko léegi tërbiya daa am ay mbir yoo xam ne boo bëggee yar nit ki pour mu compléter fokk yooyu nekk ñoom mm-hmm. bi ci njëkk mooy xam-xam moom mii xam mooy ni mu ko waxee rek la te fokk wax ji lëkkaloo mooy musta nangu xale bi nga xam ne xale la ñëw di def lu dul jàng loo mën a def jàng rek la bëgg nga def ko ndax di daan wax ni la alxuraan ni yahdi lillati hiya aqwam alxuraan ku ko nangu donte da ngeen di jaay sax jaay magasin jaay ci bitig ki nangu woon a jàng alxuraan ba mokkal ko boo ko joxee bitik bi moo lay gën a jub gën la koo mën a sàmm gën la koo gën a saytu ki nga xam ne ba nga koy jàngaloo woon mu bon foog ka ko nangu woon mu bañ ka ko nangu woon moo koy moo koy gën a man moo koy gën a nangu moo tax njëlbéenam mooy alxuraan sëñ nee na nee na isaama talawtul aaya quraan rabbina saa boo xam ne jël naa benn aaya rek tudd ko li ma bëgg lépp ci wiiw day wommatu te li ma ragal lépp ci ay day dem moo tax kon njëlbeenam njëlbeenam ci tërbiya mooy jàng jàng gi tamit mooy bu amee ba noppi moom li nga xam ne mënta ñàkk mooy jaxasoo gi jaxasoo gi sëñ abi mi xam na ni naka néeg yi boo xoolee plan daar yu njëkk yi moo xam mooy xàbbaan wala muy got wala muy njàpp ndal yooyu plan bi mu yor néeg yi ñuy tëdd néeg yi muy tëdd ñooyam yàlla xam na ko ñoo bokk benn raax bu ñu leen raax ñoo bokk nuñ tëddee lal yi ñoo bokk nuñ demee hmm. jamono boobu torse la daan yor torse torse nga xam ni ne yow mi ñëw ci moom di nga xam ni lu dul torsi bi muy niitu yoru ko te léegi la pile bi brûlé nga xam ne benn bis pour pile bi daa brûlé maa ko fa nekk ndoloon mu ne ko pile bi de nii mu demee boo fëggee côté bi mën naa tàkk ubbi ko bi mu fëggee mu tàkk mu reetaan ne ko lii xanaa ko tumuranke ku nekk rek noo mën a def di nga ab dong ci biir ñàkk ngay ñàkk pexe ci ngay demee ba loolu jurul ubbi la bunt bunt yëpp moom moom sëñ bi nag taxoo googu muy taxoo yow nga xam ni bu xale bi door a ñëw day day tëdd ak yow ànd ak yow dalay jox lekk toog di xool boole laa ko ñam biir xool googu mu leen di xool nga li koy ci ñor dina xool dina xam ñu fuqale xam ñu goree di xam ni nga xam ne mënuñoo lekk mu tàmbalee saytu nag ku ne ci njëlbeen googu nga xam ne ku ne xale gan ñii ñëpp xam nañ ne ah, ku ne ah taxoo nga moom ëpp diggante bu fajaree muy yéela ni la jógal julli dina xam ba xam sawar nga ci lu baax wala déet benn bis damaa yee fajar na jóg leen julli xale bi nag du lijjanti jàpp nga am déet da ngay jóg rek mun la jógal julli ñu jóg may julli di julli ba yàgg mu ne fajar la ba yàgg mu xanaa doy na boog ndax booba xamagoo ñaar ñaata ñaata ñaata ràkk moo tax danaa wax ni defar taqoo diggante bi muy taqoog yow ci fan yooyu bu la orienté ci daara ba addinay tukki buñu ne ko Abdou Ndiaye def nangam wala Moustapha Diop di def nangam dina ne loolu moo ko def waaw waaw waaw waaw wala déet ndax daara yi ma wax sëñ Abibu xam na ne lu ñu daan jaxase la muy jàngal nit ki nga xam ne moo yor daara ji boole kook jàngale ci daara sëñ Saliou rek la mu sa am ndax benn daara ji day day da ciy teg ki nga xam ne moo lay jàngal liggéey boole ci ki nga xam ne moo lay boole ci ki nga xam ne boo matee xam-xam moom moo lay jàngal xam-xam mooy tax nit ki bu fa jógee rek day doon nit koo xam ne nit ku complété lay doon koo xam ne li li liñ soxla ci nit lépp mi ngi ci moo tax ñenn ñi dañ naan dongob sëñ Saliou daa xaw a dëgër bopp déedéet nit ki afa afaman yam si mukiban ala wajhi ahda aman yam si sawiyan ala siratil mustaqim yow mi xam ni lii mooy dëgg xam sëñ saliw néew bi mu amoon ak ni mu daan def nit ñi comme nii ñu soloo lañ solo mooy basang bii nga xam ne ay nit a ciy toog sëñ saliw daaw ci mës a teg ay dàll te ku kuy xale ci ñoom ñii yar gim lay yar dana dana àgg ak yow foo xam ne boo ko doon nett nit ñi danañ du dëgg ngir won ngir du la wane moom maqaama mi mu nekk moom daraja ji mu nekk rek la lay wane ngir bëgg nu def ba jariñ la jariñ nit ñi rek ko doon doon sëñ ma dem si bi ma daan jàngal yàlla na ko yàlla yokki leer dani ma sëñ Saliou dani ko woon man daal li ma la dénk ñoom fexeel bañ toog rek ndax ku toog jariñu te loolu feeñ na ci gën a yëpp sëñ Ablaay mm-hmm. yar daal dafa doon lu mënta ñàkk te ki lay yar ak kum mën a doon day seet lim jàppe ni programme la lu mu bëgg ay magam mel ni ëllëg loolu lay defu programme jëmbat ko ci ndawam ki yar nag ay aadaam day jeexital ci xale bi moo tax ku mel ni sëñ Saliou ci yërmande ji ak baax gaag muus geeg yewwu geeg ngore gi moo tax kum yar rek loola jeexital ci yow ci gàttal daal Mm-hmm. tërbiya la mooy ñett yi mu wax lépp da ciy feeñ mooy njàng mi ak yar bi ak liggéey bi ñett mm-hmm. yooyu bu ci sooxee rek buñ ko tuddee tarbiyatul islam yi nañ ko seet te joyal li tarbiya li muy laaf xam ne loolu du tarbiyatul islam euh, jërëjëf euh, sëñ Abdou euh, kon ñëw nga ci ni sang bi doon tarbiya tarbiya nag du fi jóge du jóge ci yoonu murit waaye ñu gis ne ni Serigne Saliou daan tarbiya xaw na wuute ak léegi lu ñu gis ci lu bari ci ni ñuy tarbiya ci yenn daara yi yoon wi mu sooboon ñi mu daan tarbiya yoon waaw yoon wi nga xam ne nag moom la soob ñi mu ñi muy tarbiya dafa doon yoon woo xam ni luy xaw a diis ci xale la waaye xale attan na lu ne ndax dañ ni xenda sabki tasarul jëwhër wurus wi boo koy lakk ci la ci la ci la ci la valeur yi feeñ. ci la valeur yi feeñ. voilà hmm. di nga gis benn xale ci melokaan wi muy mel wi muy mel yow mi nga xam ni dangay natt nit ki ci nit ki da koy yërëm waaye nit dañ koo bind ci ñaar mooy al jawhar wal madda lii ngay làmb di daj aw yaram la rek yëg-yëgam bëriwul léegi la nga gis xale bu soluti dal da nga koy yërëm biñ doonee ndaw daan nañ dem ci kër def matière yi donga rek yëlëmte lu damm sa bopp ba nga xam ne ku la gis dalay teg ko tumuranki ngir jox la dara buñ fa jógee ñu ñu daan yërëm ñun kër meer bu seytaane waak paa bu seytaane ba luñ li ñuy doon daan daw xam nañ nit ñi jël seeni doom di leen su ñun suñuy wayjur bëgg ñu jox ñu sëñ bu ñuy jàngal di ñu yar kii ñuy yërëm loolu du yërmande farham saqiran laa takun muddaqira anhu la yaadan min nasihatin tura fi rus rusdan ndax yërëm nit mooy seet li koy jariñ rek nga teg ko ci moo tax sëñ Saliou daan na ñëw ci daara ji fekk nit ki ci melokaan muy xiif wala xaw a tilim wala sedd bi jàpp ko ci yërmandeem ji ba muy tuur ay xéewal waaye du tax mu ni ko jóge fi hmm. toog fi lay def tappale yu ne def nañ ko ci biñ doonee xale ndax xale-xale la rek ngir bëgg ci génn ndax sëñ abi mii xam ne ni ñu naqari xel da am na ñoo xam ne alxuraan du seen cër loo mën a jàngale loo xarañ xarañ euh, alxuraan du seen cër da nga ñëw bëgg ko bëgg bëgg am naa ànd nag nit mu ñëw ni ko maam damaa bëgg bàyyi jàng alxuraan ndax sunu xel sunu askan kenn neexu ci xel kenn nangam sëñ bi ne ko sa law nit de ko bañ la jiitu na ñaari ñaari doo nangu la ca topp hmm. moo tax boo demee rek nanga nga na nga góorgóorlu yoon wu njëkk yi mooy jàng dafa metti dafa naqari yar dafa metti dafa naqari sëñ Saliou nag da daan wax ni fokk ñu bàyyi xel ci yoon wii ma leen teg ni nit ki nga xam ni dafa bàyyeekoo ci njab ci ciy way juróom hmm. ñëw ci daara ji wéet gëm wéet ci way juróom rek doy na metti kon nag wéet googu bu amee bu ñëwee ba noppi ñu koy teg dóor ak a bunduxatal loolu da dul xam lu muy lu muy nuru xam nga jàng jàngal nit koo xam ne xale la kii lu bari fay ñu la ba noppi ni la bu ko dóor bu ko naqaral day indi ci xel ci ki koy jàngal lu bari ñu bari am na ñoo xam ni daara ji am nañ ci jafe-jafe yu mel noonu waaye sëñ bi dani xam na ni sëñ Tuubaa lu mu ñaan laata ma koy ñaan suñu borom may na ko mhm. te moo woon eh, bii di hiyaali bila bu kaay aslata bii di hiyaali bila bu kaay ni nag kon ni xale mën naa fexe bu jub te kenn du ko duma yoon wu njëkki mooy ab xale bo mën ngay jëflanteeg moom ci lu nuru taraanga ba def loo ko lu naqar yàlla waxuma laak nag ki nga xam ni da nga koo bëgg a jubal kooku moom boo jéemee ci moom benn kii rek mën nga koo jubal te te te du am jafe-jafe loolu ni nga koy defee mooy dangay ngay fexe ba xale bi doon sab xarit xale bi ngay defar dangay fexe ba mu doon sa xarit yeneen bi alayhi salaatu salaam nee na taxaadoo wa taxaaboo nit boo koy dimbali rek day mujj sopp la léegi-léegi ñu naan diw léegi-léegi nga dégg ko naan diw ni mu lu tax mooy da koy jox ñaar téeméer xañ na wala nangam loolu nag boo ko booleeg di ko jàngal xale bi loolu mooy waral ba ñim yaroon ñëpp fii mu toll ñooy wëlbatikuwaat di dem xel comme jëlaat engagement ci liggéey ci des kenn mm-hmm. am ne dane ma yéen de seen daara daa wuute ndax yéen daara sëñ Saliou dañoo gis ne yéen ñu fa nekkoon ñëpp yéen a liggéey liggéey ba di gàmmoo ko def yooyu waaye ñun day ku ne na nga daara jaa tax daara ji sax bëggatoo koo gis euh, jërëjëf euh, sëñ Abdou danañ dellu si waat ak yow ci kanam tuuti ba tey rek ci wàllu tarbiya sëriñ Saliou ak euh, tarbiya ah mbokk yi ku jàppul sa sàcc rek daf laa ne waa mi naan électricité ak si nañ yow mi bëgg nag kaaraange moo xam sa bureau sa kër